الشيخ إليه خد بالعارفين إمامنا رجعي وقصين الإلهي وسينتي ختام النظام للولاية جملة بقي أرتجي الغفران من كل ذلة بقي أرتجي المبقى المخالق كلها بقيتنا تجاني من كل شدتي فكم حسك عند الإناء زيارة زوايا ولكننا بخبتي ونادي وقل يديني ما وأقل جواب علي دري وتيني مرامي ورغبتي كدفتني يلا نغسك سيدنا محمد وما زلت أرجو من الله وحده وإن لم أنا لا يا سيد الحاج مالك وانت وانت مالك عندك صالح لك صادق إجابة داعي للنيران وذلتي إلهي يخاف الوالدين الذنوب أذانك يا رحمن كل المشيختي كذلك إخواني إلهي يا ومن يتبي ربي إلى غير ملتي وأنت صلاة الله وسلامي على خير خلق الله من خير سنيتي مع الآل والأصحاب ما زر شيخ وما خال دعيني إلهي لشدتي أنا دي بقى سرين توبا أنا دي بقى سرين توبا أنا دي بقى سرين توبا أنا دي بقى سرين توبا ana ñi bëgg Serigne Saliou ku bëgg bàyyi Fall Mbàkke nil bi ñu sargal borom jërël ñu sargal borom jërël ñu sargal borom jërël Sëriñ Tuuba ane lu wax Sëriñ Tuuba ane na Sayyidina Muhammad sallallahu nee na Muhammadun misaalu oh. oh. lam yaati lam yaati fi ma madaa wa badan fi ma madaa la yaati la yaati sabatan rabbana lam sabatan rabbana bambadana bambadana bambadana ثبت أن ربنا ثبت أن ربنا مثله فمثله لا يرى كون النبي منتقى محمد خير الورى مختارين لا تستري الدنيا بخرايا فتاة طبع النور في الدنيا فزيانا بك سيرين توبا بك سيرين توبا بك سيرين توبا بك سيرين توبا bëgg Sëriñ Tuuba sargal Bamba bëgg Sëriñ Tuuba jar na ko bëgg Sëriñ Tuuba jar na ko bëgg Sëriñ Tuuba génn bu ci seen Tuuba jaroon na ko def neen def neen sargal Bamba def neen Bamba jaroon na ko def neen jaroon na ko def neen Bamba jaroon na ko ana ñi bëgg Serigne Touba def neen sunu Bamba def neen Bamba jaroon na ko def neen Bamba Fatima ana soppay Cheikh Bara Mbacké def neen Bamba jaroon na ko Sëriñ Saliou def leen ca muur yi na soppi sëriñ Muntaxa Basiru yéen seen loxo na ca muur yi bu bëgg sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa def leen ni gërëm def leen ni gërëm def leen ni gërëm kuy muur ana baay fani yee ana yaay fani yee def leen ni sunu maam Bamba def leen ni ku ci gën a bëgg Serigne Touba aca loxo yi ca kaw a kaw a kaw ku ci gën a bëgg Serigne sunu maam Bamba aca loxo yi ca kaw a kaw a kaw ku ci gën a bëgg Serigne sunu maam Bamba aca loxo yi ca kaw a kaw a kaw bëgg Serigne Touba jël loxo yi sa kaw a kaw loxo yi sa kaw ku bëgg Serigne Touba a ci def leen dara naa ko acca acca yow la wax leen ko wax leen rek acca acca moom rek ku bëgg Sëriñ Tuuba moom rek xanaa fi amul ay murit xanaa fi amul ay murit ana ray fan yee moom rek def leen ni moom rek sàngen seen daxa moom rek acca moom rek Sëriñ Muntaxa nee na ci xasida yi rek ci xasida yi rek rek kon ci xasida yi rek kon ci xasida yi ci xasida yi rek ci xasida yi rek ci xasida yi rek ci xasida yi rek ci def leen nii def leen sargal sëñ Muntaxa def leen nii def leen sargal sëñ Muntaxa aj wali yi kaamil ma di tunawi tunawi ma di ko dikkal ma di ko janaar melaw melaw gis naa jëmmam ja gis naa jëm wax ja wax ko wax ma moomin mu wax ma moomin ma yëg ko ma yëg ko waaye du tee ma waaye du tee ma laala Sëriñ Tuuba yaakaar gi ma bëgg naa aye du tee ma naan ko laala Sëriñ Tuuba yaakaar gi ma bëgg naa aye du tee ma naan ko laala Serigne Touba yaakaar gi man bëgg naa la ay du ci mën naa nam naa la borom Touba yaakaar gi man bëgg naa la ay du ci mën naa la Serigne Touba yaakaar gi man bëgg naa la ay du ci mën naa la tiflil li ngeen ci tiflil li ngeen ci tiflil li ngeen ku ci gën a bëgg Serigne Babacar ata loxoy ca kaw loxoy ca kaw naasiril xaq ci diinul xaq Tilène TV leeru diine Tilène TV Leru Dine.